Ok, je me présente. C'est Aliou, coordonnateur du mouvement Correction. Oui, le mouvement Correction, je pense que mon moment, il est né dans un contexte très particulier. Quoi. le mouvement Correction est né dans un contexte très particulier. C'est-à-dire que nous à un moment donné, nous devons faire par rapport à notre localité. Mais la banlieue dans le cadre général. Mais l'INSEL le moyen, l'INSEL le moyen, c'est banlieue depuis belle lurette moi, li fi xew vraiment en tant que banlieusard neexuñu en tant que fils de ce territoire neexuñu muy lan boy xol la banlieue est à elle-même sur le plan général boy xol boy xol banlieue bi amul école primaire ne ce que reste que sax même bu dee case des tout petits li gëna ndaw té nga xamanténi ni Guédiawaye quatre département moko ko moo fi département bu ci nek amna na case des tout petits menn Médina Gounass nga gis ne amul cas des tout-petits ñu gis ne ci côté environnement Médina Gounass doxul parce que loo fi gis des villages mal lotis nga fi gis ci côté administrativement booy xool Médina Gounass amul dara ci loolu nag face à cette situation ci lañ ne def un cri de cœur cri de cœur mooy lan ñu créer ce qu'on appelle un mouvement correction mouvement correction du lenn dul te buñ ko waxee c'est par rapport à un système nous sommes fi pour corriger une personne mais un système c'est-à-dire le système bi doxee nous ñu nous ñu ne dañuy def suñu cri de cœur pour mettre fin à cela je pense qu'en gros, c'est très ramassé. c'est-à-dire que nous avons un deuxième plan d'action on l'a commencé avec une caravane l'idée c'était de faire une vulgarisation du mouvement les bobos aussi on a on a constaté que ça ça portait ses fruits c'est-à-dire que il nañ y avait une mobilisation C'est loolu que ci doon souhaité ñu pourquoi pas ñu def un plan d'action bi plan d'action nous ñu essentiellement sur l'aspect social c'est-à-dire faire des consultations gratuites on l'a commencé aujourd'hui une consultation gynéco parce que gis nañ ne lu gynéco day feebar bi nga dafa surtout les on a cette possibilité nous avons leen faire des consultations def test moy cancer col de l'utérus je pense que depuis le le bilan est satisfaisant parce que gis nañ ce CEPICO ba légui enregistré gunum lu mu dee dee lu lu mu personnes ñu ngi dugg ñu ngi def consultation je pense que donc l'objectif est atteint quoi. bi ci top moy demain demain on a une autre consultation bi nga xamanteni bobu consultation spécialisée la c'est-à-dire ophtalmologie fofu aussi ñu ngi ci woo ci population yi kenn ku ci nekk ñeu participer parce que y aura des dons de lunettes quoi la perspective yi c'est-à-dire que nous dañu liñ bëgg dal politique dañ ko bëgg bëgg sur le développement sur le développement mais essentiellement aussi tamit sur l'aspect social parce que comme dañ koy dañ koy tout le temps dañ que Médina boy sax suñu bi lañ defoon manifeste dañ de par sa forme morphologique géomorphologique dañ la localité elle, ressemble à une cuvette quoi elle ressemble à une cuvette c'est-à-dire le les këll boobu booy xool ñun ñenn pour ñenn ñi dañ ne moom la nous mais tamit këll boobu dañu bëggoon ñun en tant que habitant en tant que jeunes, ñun dañ ne nañ de ba telle sorte que les lépp lu mënati amati peut-être localité bi mën ko jëriñoo mais pas benn groupuscule bu ndaw

nekk membre cellule communication. ah li waral bis bi mooy dañuy yëngu ci cadre social di yëngu ci développement tamit te gis nañu tamit suñu yaay yi ak suñu sœurs yi euh, yombul ci ñoom bu ñu dem di gisi ay gynécologue wala di dem di gisi ay spécialiste en matière d'ophtalmologie moo tax ñu yomb bëgg leen koo yombalal ñu indil leen loolu noonu ñu ñëw toog ñu xool leen en matière de gynécologie ba pare xoolaat leen en matière d'ophtalmologie ba pare mayaat leen ay lunettes parce que xam nañ ni suñu dëkk bi ñu nekk day pauvreté daf fi xaw a bëri donc bu nekkee wàllum bët la ak wàllum lunette xaw na cher. donc looloo taxoon ñu indi leen loolu noonu bëgg leen mayaat loolu noonu nga xam te ne day duggaat ci biir population bi. waaw sant nañ yàlla bu baax parce que nit ñi génn nañ depuis suba ba léegi ñi ngi consulter te enregistré gum nañ en moyenne cent personnes yoo xam te ne war nañoo consulter wu en en moyenne ak ñi nga xam te ne jot nañoo ñëw suba ak léegi. waaw dañuy woo ñëpp rek di leen wane leen mouvement bi seen mouvement la parce que seeni ay doom ñoo ko yëkkati ngir mën a bëgg a suqali Gunaas ndax li ñu gis fii ci Medina Gunaas neexuñu moo tax ñi ngi woo ñëpp di woo suñu papa yeeg suñu yaay yi di woo lépp képp kuy partenaire di bien faisant ñi nga xam ñu ñëw jàppale ñu ci loolu noonu. waaw balaa may fàttali may remercier waa Maristop ñi nga xamante ne moom lañu àndal ci journée bi. di remercier waa Maristop di remercier ñi suñu partenaire yëpp ñi nga xamante ni ñoo si jàpp di remercier tamit suñu sëriñ Cheikh Abdoul Aziz Ndiaye bi nga xamante ni moo ñu ñaanal euh, di woo ñëpp tamit ne leen nañ si jàpp salaamaaleykum wa rahmatullah